lu mu ci xalaat li ma xalaat ci journaliste euh, Sénégal bépp boo xam ne teg nañu la loxo teg la loxo nag ci kaw euh, lii nga xam ne mooy liggéey bi ngay liggéey. Euh, ñu teg la ci loxo waxuma leneen loo xam ne def nga ko feneen loo xam ne teg nañu see loxo def naa ni je parle des journalistes arrêtés dans le cadre de leur travail pour mu gën a clair et pap Ndiaye en fait partie il a été arrêté dans le cadre de sa profession mm-hmm. comme l'a été Pape Alé Niang donc wax na wax joo xam ne mm, dégg nañ ko jàpp nañu ni dafa juum wa ilaa ka ko jox information bi juumloo na ko parce que comme ni ñu koy waxee rek journaliste moom source la mhm. source nag dafay nekk source de bonne fois source de bonne foi lu mu nekk nekk source de bonne foi source boobu mën la tromper tey dafa mel ni rek euh, may euh, xam Aïcha mhm. mu may jox information te information yu may jox yëpp information yu wóor la Euh, Aïcha mun na dem ba jamono xëy na mu trompé ma xëy na damay jàpp ni Papa Ndiaye s'il la parlé il a parlé de bonne foi jàpp na ni la mu wax effectivement euh, xëy na nit ka ko jox wala nit ki ko ko jox yàgg nañ ko jox ay information yoo xam ne ça s'avère être vrai donc euh, l'un dans l'autre on se dira oui peut-être qu'il s'est trompé de bon fois mais encore une fois on ne peut pas penser qu'en 2023 mm-hmm. que Sénégal di war a di di tëj véritablement li nga xam moo di délit de presse délit de presse Niger bi nga xam ni ñun mun nañ ko joxoon ay jamono leçon de démocratie ay jamono laa wax mënoon nañ ko jox leçon de démocratie euh, si wàllu stabilité Sénégal nekk exemple si li nga xam moo di avancée notoire boo xam ne seetlu nañ ko dans le milieu des médias Sénégal ñu bari fii la ñëw waaye dëkk yooyu yëpp tey di rotti nañu au Niger on ne parle même plus de de de de presse. yoo xam ne tëj nañ parce que boo jëlee tey affaire u Pape Ndiaye euh, defu ko n'importe qui ci ay magistrat la jëm wax ji. mais attendez est-ce qu'il y a des citoyens d'exception il n'y a pas de citoyens d'exception on parle d'institutions et nous tous nous devons respecter les institutions n'est-ce pas mm-hmm. mais les institutions sont incarnées des personnes yow mii xanaa yow sa bopp da nga jàpp ni yow ak man ak Pape Malick nous sommes n'importe qui. non non ah? ma jeexal foofu. imposé wul ah? ma jeexal si lu mu wax dafa am solo. Mhm. li ma am sax nga baal ma gërëwaar li ma am dafa am solo. c'est-à-dire que buñ ne waxu ko si n'importe qui le le magistrat on sait ce qu'il représente. dans le pays on sait ce qu'il représente par rapport ak li nga xam ne moo di pouvoir bi nga xam ne cee nañ ko di pouvoir judiciaire mais encore une fois wax ko si magistrat est-ce que c'est encore. pire que wax wax daar si président wala c'est pire wax dara si ministre wax wala wax pire ci imam wala ci kilifa diine je encore une fois journaliste bi wax ak journaliste bi bind dans l'exercice de sa profession njuumte mën na laa dal ñaa ñaata yoon la journaliste jot démenti par rapport à une information boo xam ne source de bonne foi la mhm. ñaata yoon nga jot li nga xam ne moo di amaana menace de plainte pour diffamation alors que du doon sa intention il faut quand même que l'on puisse nous dire que liggéey bi ñu def dafa nekk liggéey bu sensible tey jii mun ngay ñëw toog ci plateau bi Pape di wax du ko tey mu def benn dérive sans s'en rendre compte dérive boobu suba jural ko leneen. de ce point de vue il faut ñu koy jàppee noonu la place du journaliste dans l'exercice de sa profession. encore une fois nekkul prison je crois bien que loolu il faut ñu insister si mhm. te encore une fois il faut ko nous formions un bloc homogène il ne faudrait ñun ñu accepter que les politiques nous divisent mhm. il ne faut pas qu'on l'accepte parce que tey jii nii cette TV ñaanuñu ko yàlla bés bu jafe-jafe bu ko amoon kenn si kër gi mhm. wala wala wala kër gi si wala boppam ñu bugg ko bunduxataal xataal gëm naa ni journaliste yépp daañu jóg taxaw def bloc wala boog ñi gëm xeex bi nga xam ne dañoo war a xeex par rapport ak li nga xam mooy euh, média yu taxaw entreprise de presse yu taxaw professionnel de l' information yu taxaw encore une fois defe naa ni Pape yàggul tuuti amoon na fi jafe-jafe gis naa réaction yu am automatiquement dans le cadre la coordination des associations de la presse yoo xam ne dañu ne il faut quand même teg jéego vite fait mm-hmm. te pourtant am na si biir ñuy réagir ñoo xam ne xëy na xamuñu Pape Malick Pape xamu leen je pense que loolu dafa na war a nekk une réaction spontanée journaliste waroo toog rek ne noo dafa tooñ sama yoon nekku si déedéet dafa tooñ mais quand boo tooñee ba pare ak accepter reconnaître ni da nga tooñ xam lu gën a neex nga tooñ reconnaître ni da nga tooñ nga juum reconnaître da nga juum defe naa ni loolu c'est de la grandeur mm. defe naa ni nag te journaliste bu bii di Pape Ndiaye mm. wax na li muy wax wax na ni moom accepté ni bu fekkee dafa jumb samande euh, véritablement laaj li nga xam ne moo di jéggalu parce que bu dee dafa tooñ ñu jàpp ne dafa tooñ waaye jàpp naa ni nag ku nangoo baalu def naa ni euh, dépassé nga cadre bu ñu lay tegee six chefs d'inculpation yoo xam ne bu si nekk tar na te defe naa ni jaru ko mattewu ko te loolu dafay créer ay soupçons de tentatives de museler mm -hmm. certains journalistes que l'on pense en tout cas dérangés par rapport à certaines prises de position et relativement à certains dossiers.